jàppale tey mooy fas yéene teg xeer wu njëkk barab bu am solo bu ñuy wax miftaaxul mu naa tur wi nag mi ngi bàyyi ko ci euh, gàmm làmmiñ ñu Cheikh mu Mountakha wu tedd woowee muy centre d'accueil boo xam ne nii war naa doon téeméeri néeg ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite muy dalukaay yoo xam ne kilifa lañ koy beral la waral yitte ji nag mooy dalukaay yoo xam ne tey hôpital bi nga xam ne moom la jàkkaarlool ñu war ko faa def incha allahu rabbi lépp lu ci ne ci turu Serigne terrain bi turu Serigne Touba la sëñ Mountakha moo joxe turu barab bi teg ko ci loxo si Sëñ Ahmadul Badawi téeméeri néeg la ak ñeent fukk ak ñeent ak ñaari suite waaye loolu lépp bu pare li ko waral mooy centre d'accueil la képp ku ñu hospitalisé nga ne ci hôpital ba di faj sa loxo juutu sa ginnaaw amoo fenn euh, foo xamante ni nii mën nga faa dem foofee ngay nekk ba sam faj ak nga dellu ci sa yitte kon loolu lu kawe la liggéeyal Serigne Touba la ginnaaw bi nu fàggoo hôpital Cheikh Ahmadou Khadim loolu nekk koy amal dongab Serigne Touba la bu xeebu boo xam ne Cheikh Amadou Moustapha rek la teg fi kanamam muy Alaaji Pape Fall ami bitik ànd ko ak njaboot gi yëpp muy mboolem njaboot gi nga xam mooy njabootu ak ñi nga xam ne lim naa leen léegi jotaay bi ko laaj te euh, jamono ji tolloo ay yitte damay ba teg foofu sama loxo kañ dañu koy def le trois février tolloo ak ñaar fukki fan ak ñaar wala ñett ci yoonu rajab fee nga xam ne moo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadou Khadim ci yoonu mesere bi incha allahu ra bu 11h jotee boobu laay joxe sama kàddu nag ki nga xamante ni moom mooy euh, Serigne euh, Basirou Ñaan mu yëkkati kàddu ci turu kilifa ak sëñ Pape Fall muy Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde ma mi nga xam ne moo nu fi yebal aoudu billahi samii alim min iblis ashaytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigal ndigalul sëriñ Abdourahman Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di ab xalifaam ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootuk sëriñ Touba gépp mu yabal nu fii tey nag ci way juram léppam mu Cheikh Mouhamadul bashir moom sëriñ Abdul Xaadir ngir ni ko sëriñ Cheikh Mbacke bu waxee léegi ci jëf ju rëy ju màgg ji nga xam ne incha allahu moom la ñuy war a tàmbali le 3 février sëriñ Abdou nag wax ne suñ ñëwee nañ jël kàddu ci turam waaye itam jottali loo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye itam nag ñu fàttali ko ndax alxuraan moon wax ne na ngeen di fàttali ndax fàttali na jariñ ku gëm. muy jëf jure ji nga xam ne euh, kenn ci moom koo xam ne ay waajuram ñoo àndoon aki i juram te mësta teggi tànk seeni mësuñoo teggi seen tànk fañ ko teg loola yitam di loo xam ne alxuraan moo ko wax ndax moo wax ne minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xadaa naxbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila muy wane ne Pape Fallé mi boutique mii nga xam ne suñ borom dalee na boole bu yàgg boole woon way jur yi mu ànd ay way juram wa ànd ak i magam ba mu nekk fi mu ànd ak moom mu di leen jottali rek Pastef boo xam ne xam na ko ci moom te loola nag mooy la fi maam yi bàyyi woon rek béykat yi ñu tàmbalee léegi euh, jataay bi wane na ne li Serigne Touba ñaanoon ci béykat yi lépp sunu borom defal na ko ko. ndax itam loolu mooy bàyyi fi ñoo xam ne la nga daan def ci lu baax ba ñu ñëwee dañ ko àggale dañ ko gën a dañ ko gën a rafetal wolof njaay nag nee na waxtu woo jiyee te say ba réer la nee na négal ba mu taw nee na su tawee rek nga xam fi nga ji woon nee kon nag nji mi sax na mi ngi ñaan mi ngi koy ñaanal yàlla nag sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli koo jàppale ndax kat lépp loo xam ne war war na ko rek mi ngi koy def tey soññ ko ci dara ayiwu ko dara itam loolu ak taalube rek moo ko man nee na kon mi ngi koy ñaanal di ko seere jullit yëpp di ko seere taalube yëpp di ko seere mbokk yëpp ne ku mu gërëm la te ngërëm lii mu am ci moom itam yàgg na koo am ndax amoon na ko ci ay magam amoon ko ci ay waajuram tey taxu koo dégg tànkam loolu la sëriñ boo xam ne nañ leen ko jot li wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Mouhamadul Bachir nee na mi ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp. nee na mi ngi ñuy jottali nuyoo Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fii Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér sunu borom it dolli ko kattan akuk wér ba mu mottali liggéeyub Serigne tubaa bi jëme ko ci bokki taalibe yëpp nee na mi ngi ñaan bu amee lenn loo xam ne am xelam faay na ko rek ñu jéggal ko. ndax walla xadd xahid naa ilaa aadama min xablu fa nasiya loolu moog doomu aadama ñoo ànd doomu aadama dafa mën a fàtte kon mi ngi tàmbalee nuyoo bi rek ci njabootuk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñi nga xam ne ñoo fi teewal Serigne Sidi Sarr may xalifa ba te njaboot gépp nag maase teew kër yëpp teew nañ di leen yóbbante ab nuyoo ak cant ak ngërëm ndax yéen kat Serigne Saliou dadaa wax ne yéen yéenay layul yoon wi moo tax ñaare kër gum masa sañc sanc Serigne Saliou da daan wax sëñ Basiirou Sarr na ko bu ma sañoon nga jiitu fa ndax yéen yéenay njiglaayul yoon wi ndax ñoom kat ba ñuy ànd ak Serigne Touba seen maam booba yoon wi taxawagut de booba yoonu murit amagut sëñ Ibrahima Sarr nangul sëñ Tuubaa lool nee na loolu day gudd ci jataay bii waaye nag yàlla def na ba nga xamee ne sunu borom wax na sëriñ Tuubaa ne ko fasdah bi ma tuumaru ca ba mu waxee rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars Cheikh Adama Gueye moo njëkk a jaayante ak Serigne Touba su ma juumut it Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo ca topp kon moom moom da yàgg na ci Serigne Touba de njabootam gépp itam fasteef boobee rek ak yoon woowa ak doxin wooba ca lañ nekk bëgg Serigne Touba yamale wun Serigne Touba ak dara seey nag ci biir Serigne Touba bëggit njabootuk Serigne Touba gi ñi ci des ñëpp muy njabootug sëñ Abdoulahi Jaw Paxa ak sëñ Mut Jaw Paxa ñi nga xam ne ñoo ñoom ñii ñoo ànd ak njabootug sëriñ Aliou Fall Mbawar tudd ngeen ko léegi Cheikh Ibra nag ñëpp xam nañ ne mu demee ak sëñ Touba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moom la sëriñ Touba mujj a jox ndigal ca xutbatu wam sin ak njabootug sëriñ Mouhamadul Mahmoud ñang mii sëñ Moudou ma ñang ku ne xam ni mu demee waaye juram ak Cheikh Mouhamadul Fadal waaye nag mu nekkoon ci kër sëñ Touba bàyyam jeexal lépp ci sëñ xam naa du ñàkk lu fàtte sax waaye li ci am solo daal kenn ñëwu fi ngir bëgg rek ñu lim la ku fi ñëw rek Pastef ba démb ba moo la andi loolu képp moo leen yëkkati ndax yoon wi moom dama naan lu la ci naqari jógewul te cosaan ya kon nag ci turu Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha mu teewaal moom Cheikh Bassirou nag teewaaleel fi kilifaam di Serigne Ahmadou Mbacké Badawiyu moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moo waroon a ñëw ñu ànd waaye nag moom. wa yusaroona ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun noonee lay doxe moo tax danaan boo teewee rek teewaaleel nga ma waaye yàlla dogal na liggéey bii bi ko sëñ Pape Fall xalaatee tolloo ak ñoom seen kuréel googu ñu taxawal sëriñ bi boole leen ak sëñ Ahmad Badawi ñu tabax ay tabax yu bari ci université ba ca biir loola nag cela moom sëñ Pape Fall mii xalaate xalaat bii sëriñ Ahmadou Badawi gunge ko ci xalaat bi ban agsi fii tey ba mu àgg ci sottileti tam war koo tàmbali moom sax bëggutoon kenn yëg ko dana woon da koy def rek ngir sëñ Touba ca lool dong moo ci am solo waaye jëf moom sellal gi moo ci am solo waaye jëf joo xam ne bu ko ñëpp deggee man caaro Caaroy loola siiwal ga wàññiwul dara kon ñi ngi lay gërëm bu baax rawatina nag ginnaaw ba nga ci amee ndigalul sëriñ bi li baax baax wa aatul bu yoota min abwaabiha da ngaa dem ci sa sëriñ muy sëñ Abdourahman nga laaj ko ci ndigal sëñ Abdourahman nag moom pas seefam akuk taalibeem akuk baaxam ak bëggam sëñ Tuubaa ak fonk kilifaam kenn mënu ko caa jiitu na moom mii di Basiiru wóor na ko ne bu tàgguwutoon sëñ Abdourahmane it day bëgg ca lam def rek nee na loolu la yàlla def ci moom kon ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax xam nañ ne baat bi wala fii de wax naan lu juddoo ci am tàgg bu naawut jaaxal ay bokkam waaye sëtub Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bu amee dogu gu mel nii ci yoon wi nee du bett kenn te liggéey bi rëy na de ndax loo xam ne la koy liggéey mat na milliard ak genn wàllu milliard mënoon nga koo def faneen waaye nag fii nga ko dugal moo gën fopp ëpp solo ndax sëñ Tuubaa kat wax na sëriñ Masamba Diop Sam na ko Masamba mu ne ko Mbakke mu ne ko baax xam nga ne man mii ak daam saan laa daam saan mooy dencukaay gu mag mu ne ko kon de Mbàkke ñu fas yéene doon ay lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu faa am ak diw muy ndénkaan la nga defoon ca ndaam saan ga la nga ma dénkoon nee na danaa la ko jox ba nga xam ne daam saan ga séenu ko moo tax sëñ Abdou dadaa wax ne sëriñ bu ñuy jox addiya. te du joxe addiya. daa mel na ko yor sa waxandew gaal. ku fóot ay yéreem ba mu set. mu jox la na la dencal ma. bañ àgg nag ci bis bañ war a daje. ku nekk ñëw na la anam bu maa la dénkoon. nga yëkkati joxe. ba mbubb ya jeex. bu fekkutoon nga def sa mbubb ca gaal ga. xottu gaal rek ngay dese doo am loo waaj. kon ñu sëñ Pape ñu ngi lay ñaanal jëf ji nga xam ne dafa ànd ak hôpital bi ndax sëñ mu seex Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am yitte la ndax li sës ci hôpital bi dafa amoon ay borom yu ko moom yàlla def docteur Sourang di ku bëgg dëkk bi mu ñor ko lool xam naa ne loola ca maamam la ko jëlee mu wax sëñ bi ne ko la sës ci hôpital ba daal dama cee amoon xalaat bu rëy mooy jënd ko ñu dolli ko ci hôpital bi ndax dafa manqué fu ay kilifa mën a nekk nga xam ne bu ñu yokkee hôpital bi yokkee ko foofa sëriñ bi daal di yónnee Cheikh Mamadou Bassir juróom fukki million ma jënd ko jox ko ko ba miire nañ ko ngir xalaat loolu rek kon bu yàlla defee moom mii la sës ci hôpital ba. mu jënd fa terrain bu mag def ko ci turu sëñ Touba fas yéene faa tabax lii ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ña ngay ñëw ca hôpital ba ci amuñu fuñ dëkk te xam ngeen ne hopital bi buñ la waxoon la fay dugg par bis doo ko mën a gëm ndax ngir bari te day yokk ndax dëkk bi moo màggee noonu ndax dëkk boo xam ne at mu jot la cay màgg di ca dolli ko la cay dolli ko chaque année dana mat lu mat juróom fukki junniy nit ci liñ déclaré te liñ déclaré wut moo ëpp kon Touba ni muy buñ ko dut gàttandu yàgg yàgg day mas am jafe-jafe kon nag lii gàttandu ñaanuk sëriñ Touba képp la kon ñi ngi lay ñaanal kattan gi nga ba man koo jëf balaa nagani sii déwén Euh, yàlla nay asakay li ngay am ak li nga ci yéene it liggéeyal ko sëñ Tuba yàlla na ko sëñ Tuba nangu làqal la ko it fa yàq yëgut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi noo ngi rafetlu teewaayu jëwriñu Cheikhul Khadim ca Ndakaaru muy sëriñ Mouhamadul Mbacke yu fay yàlla na ko yàlla fay noo ngi sant baax tam ndawi Cheikh Mouhamadul Badi wi tàbbi nañu ci jotaay bi. di nuyu baax soxna Fatou Mbaye moom sëriñ Abibou moom Touba ca kanam di ci sëñ Pape Fall nuyu njabootug boppam muy soxna ma jigéen ak mboolem soxna yi nga xam ne ànd na ak ñoom xew-xew baa ngi noonu pose première pierre centre d'accueil muy këru dallukaay jàkkaarloo ak foofu ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim le 3 euh, février incha allahu rabbi bu 11h jotee ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn yàlla na ñu ko toogee jëf appel bi yàlla na ñu ko toog inauguré ci barke Cheikh Mouhamadul Moustapha asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. amiin amiin amiin amiin amiin